mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi a cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raahu mi nga xam ni moo fi xalifa Sëriñ Touba dañu nekk ci dëkkam bu sell bi di Touba al di dëkk boo xam ni sunu borom ci boppam moo ko dencaloon Sëriñ Touba wax ni dëkk la boo xam ni denc naa ko di xool kan moo gën a doon góor yàlla wala kan moo gën a doon ki gën a màgg ci liggéeykat yi di sallallahu ma jox ko mu doon compétir bu mag boo xam ni nitu yàlla yi fi jaaroon kenn ku nekk buñ la yëkkatilee martaba bi wan la ko wax la nattu ya ca am nga reculer ba mu des Serigne Touba. moom mi nga xam ni ba mu ko jëlee nattu ya sunu borom jal ko ko te nattu ya moo di la tubluwanna fi amwalikum wa walla wala tasmaunna loola lu jafe la moom loola jaaxal ko mu gaar ko daan ni mel ni da wax ci xelam ab sëriñ boo xam ne day laaj addi ay taalibeem man koo kooku mënuma àggale te yàlla te fekk na ba nga koy ñëw lépp luy xam-xamu xamoon na ko bi muy nag ba dala sam deg sëñ Touba bi mu gisee sëriñ bi mu mel ni xaalam dafa jaxasoo ak xaalu sëriñ bi mu ni kii daal li ma koy njëkk laaj mooy sëriñ Touba lii nekk sama xel mi tama gaaraloon ko wàlli yu bële muy laaj addiye ay taalibeem nee na bi mu bindee lettre bi yónnee ko Serigne Touba lettre ba Serigne Touba bi mu ko bindee bi mu ko ko liiree da koo yónnee waat beneen lettre bu gàtt ci saasi moom Abdoul Latif bu mu gisee lettre bi Serigne Touba bind ci lettre bi daal ni aji bind lettre bii moo wax ni ki xool lettre bii mooy Abdou Latif mi ko adressé bis mi ci tey sunu borom wàcc na ay martabaam ci pays sunu borom yi. Abdou liir lettre bi tàmbali jooy di jooy jooy yi metti ak di dajjantu di tuub di wax lan moo ko waral Serigne xamal ni ko. benn wàlliyu bi nga xam ni dangaa xeeb ay mbiram xebet ko ngir laaj gi mu laaj addi ay taalibeem loolu moom la suñu borom wékkeele ci pays suñu borom yi duuratoo dara muy lu doy waar waaye it nis tuut jooy yooyu sëñ yërëm ko ci jékki-jékki waat daal di bindaat beneen leetar boo xam ne moom sàkkuwu ko ci moom lettre bi bi mu ko xoolee ibbi ko Serigne Touba daal di bindaat leen aji bi aji bind ji nee na moom si Touba bi lettre bi aji xool lettre jii de sunu borom waat na ko mbooleem garab bu mu rékkoo woon ci moom tamayaat na ko yeneen ni may mu tàmbaliwaat di reetaan reetaan yu metti ka fa toogoon waajuram daat koy laaj ni ko yow diggante ñaari xaala yi nga nekk de jooy nga fi léegi jooy yu metti waaye it kontaan nga fi léegi di fi yu metti lu ko waral moo wax ne ko lettre bu njëkk ba de sëñ Touba damaa xamaloon ne mboolem garaat buñ la suñu borom mooyoon dindi na ko ngir gaaral boo gaaral benn wàlliyu weddi ko sa xol rek lettre ñaareel bi nag dama cee xamal ni ma suñu borom delloowaat na la yooyu garaat yooyu ba delloowaat na lu ko mu ni lu ko waral mu ni ko tuub gi nga tuub ci saa si di jooy di rëccu moom la la suñu borom yóbbu yóbbu yóbbu la foofu ak tuub tuub ak sant suñu borom dañoo lëkkaloo sëñ Touba nee na ak tuub mooy taxliya da ngay wékk ci boolem li nga xam ne nekkoon nga wat ci ci ci loo xam ne jàpp nga ne lu suufe la nga denc ba seen wicci doog a jëm ci a taw a shukru mooy sant mooy a mooy takkaay kon borom dëkk boobu nañ ñëw borom dëkk boobu it mooy ki nga xamante woon benn naar dafa am ndawal lu mu jëloon ci benn barab ni bu ma demee naa ko lakkalu ci biir mu romb sëriñ bi muy julli mu ànd ak moom di julli ci biir julli ji ba mu noppee mu dem ut ci nam mag lépp taal ndawal li di ko togg di ko togg di ko togg di ko togg ndawal li munta ñor munta ñor benn yoon loolu jaaxal ko mu def ko kéemtaan mu woowaa dëkk bi leen laaj na leen ma ndawal li maa ngi ko togg bi waxtu munta ñor lu ko waral benn waaye daal ni ko ni ko xanaa dangaa dangaa dangaa dangaa romb kawri bi mooy nit ku ñuul ko nekk fee nekk Sëñ Tuubaa la bëgg a wax mu ne ko waa romb naa fa muy julli de ma julli ci ginnaawam mu ne ko looloo ko waral kooku ku ku jiite julli doo lakk moo tax ndawal gi nga yor mun a lakk mënut a ñor kooku lañ nekk ci suufam kon loolu muqaddama la ci sëriñ bi di nuyu kilifa yi bu baax yi fi teew xëy na tur yi mën naa koo bañ a xam waaye buñ ci jiitalee sunu sëriñ sëriñ Saalixu Ture di ko ñaanal sunu borom guddal fanam wéral cëram ndax moom nee na ci weer wii la ma sunu borom wane yaqin wér ni sëñ Tuubaa ànd man ci weer wii la ma sunu borom wane ni ma sëñ Tuubaa jox na ma faydu ci weer wi la weer wi it la moom la sëriñ Tuubaa sañca Tuubaa weer wi it la sunu la sa sa yéen di saasam demee riñaan jëli julli juróom kon weer wi weer wu màgg la waaye it di nuyu sëriñ Fallou Mor Daj mi nga xam ni xam nañ ko ci kër gi bu baax a baax di ku woyof lool woyof lu bokk waaye woyoful woyof lu te doon ku diis di ko nuyu bu baax di nuyu waa kër Serigne Xaasim Mbàkke mi nga xamee ni Serigne Cheikh Thiam mii toog day bu dul dara rek sang bu tedd booba yëy gim daan yëy gura bu ko yëyee ba mu mokk jël ko ko yàbbi ko du ko sexal ci gémmañ mën na koo may xaas te dañoo wax ni xaas boo dikkee baatu sant mi ngi dikk ci alxuraan vingt cinq fois de baatu neex ma xéewal muy xaas mi ngi dikk vingt cinq fois ci alxuraan mooy niama niamatun gi nga xam ni dañ koo baat bi taage dañ koo roowal nga xam ni loolu dafa mel ni dafa am ñëpp suñu borom xéewal googu ñëpp la ko boole te moom la Cheikh Sidiye jëfandikoo ca bayitam ya a cheikhu ahmadu niamatun awlaaha haadihi alxalaayiqa kullaha mawlaaha sëñ Tuubaa daal xéewal suñu borom la boo xam ne moo ko wàcce ci mbindeef yi xéewal googu ñëpp a ko bokk bu dee baneen sant baneen xéewal gi onze la ci alquran te mooy bi bi ñu tàllal wa in tauddu nicmatallahi laa taxsuha bu ngeen doon takk xéewal suñu borom bi duñu bu ngeen doon ñi duñu ko mën a takk mukk xéewal suñu borom bi kenn mënu koo lim kon ci diggante yooyu lañ bëgg a waxee nuyoo bi ñu ngi nuyu sëriñ sëriñ Fallou Bousso bu baax di nuyu sunu bàyyi alxaaji Madiagne Niang di suñ fàllu nuyu nañ ko suñ fàllu moo daj bu baax a baax moom it waaye di nuyu waa kër sëriñ xaas yi niñ ko waxee ki fi teew sëñ ahmadou mu yóbbu ñëpp ma nga jóge ba gorom moom it ñoo Kare ma nga jóge ba. gorom ba gorom moom it nee na ñu ngi koy nuyu. ñoo koy baax a baax. di ko di nuyu Serigne Fallou Bousso bu baax moom it di ku baax lool di wëndale Baye Cheikh di nuyu sëriñ moo Modou ñas bu baax a baax a baax di ko jox waayam waaye nag di beral ak cant ak nuyoo Serigne Salih Mbène moom mu Serigne yu ture ak Serigne Ahmadou daam Touré moom mu Serigne yu ture ak Serigne Mamadou ture moom mu Serigne yu ture ak Serigne Alxaaji Touré moom mu Serigne Saliou Touré waaye nag di beral ak cant ak nuyoo Serigne Khadim Touré borom léegi léegi nga xam ni sunu xarit la di sunu lépp ñee ñoom samay sëriñ lañ ci sëñ daara sëñ saala ñooñu waaw waaye sëñ mii nag moom day sama xarit moom ñee moom sama sëñ daara lañ yoo xam ni mu am na yoo xam ne du ma ko mën a waxtaan ñoom waaye borom léegi léegi moom yu bare dama koy waxtaan moom waaw ah, dama koy waxtaan ak ñoom suñu bàyyi laa ji ma jaaj nag ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko lool ci barkeb sëñ Tuuba di nuyu Serigne seex Ñang bu baax nuyu sëriñ Mamadou Kabir ak Serigne Lamp Thiam ñu fas a waxtaanee ci sant suñu borom subhanahu wa ak sant lu am solo la wax nañ ne ak sant mooy jëmmal moom ruu la ci islaam mooy jëmmal ruuxal islam islam bu doonoon ruu cant gi mooy jëmm ji bañ man koo xool yàlla wax ni dañoo lënkale ak cant ak fàttaliku mooy tudd yàlla as sukru bi dikri Serigne Touba doy na ci sëkk am misaal nee na moom sëriñ bi bi nga xamee ni alxuraan mooy darajaam moo ko may daraja alxuraan mooy koomam moo ko mayum koom alxuraan moo ko jigéel sunu borom subhanahu wa taala waaye alxuraan ci la gërëmloo yàlla alxuraan kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi za sidqi sëñ Tuubaa nee na ci alxuraan laa doon a siddiq waaw dal kon alxuraan jooju nag moom la waxee ni danaa ko gërëm loo naa ko ci wa ardaytuhu bi bi bi shukri wa bil bi nutqi gërëm naa ci al sunu borom ci sant sant sunu borom mooy wax ak jëf wax ak jëf Serigne Cheikh Thiam lii mu dajale damay wax ni bu doon alal la la ciy ut kon tànt bi da koy rafetal lool ba mu rafet hmm. mu ni tut tànk yi jàng nañ fi ñaari kaamil alquranul karim ba mu mat te ñii ku leen gis xam ne amuñu bàkkaar damay wax ni sëriñ bi li mu am mooy sëriñ Cheikh Thiam ba tax muy sant boroomam li ma waxoon ci ay alxuraan yi léegi yàlla dana la nattu ay nattu ci wàllu alal ci xéewal ba xam yow danga ko sant wala doo ko sant dangay ngay xalab wala da sant fa ama linsaanu ida mabutaleehu rabbuhu fa akramahu wa naamahu wa yaqulu rabbiya akramani wa yaqulu rabbiya akramani sama jaam dey nit ki su ma ko xéewalee dama ko jee nattu teral ko damay day wax ni moom sunu borom teral na ma wa amma ida mabtalihu fa qadara alayhi risqahu fa yaqul rabbiya ahanani su ma ko xeñee nag alal ji muy wax ni sunu borom damaa doya dal kalla bal laa tukrimuuna al yatiima wala taxudduuna ala tahaamil miskin wa taakuluuna turaasa lan lamma wa tuhibbuuna maalan xubban jamma suñ suñ Cheikh Thiam mucc na ci loolu yàlla yooyu bu la ko joxee yenn saa yi nga gis koo xam ne suñu borom da koy jox alal waaye jamono ju ne mi ngi xool ku ku ku faatu boo ji fa ay tuut tànk mu mën a jënd kër ga boole ko ci ay kii ay këram mu doon yee di luwe di dem alalu jirim yi rek ca lay profité yàlla nee na léeg léegi nga gis koo xamante ni bëgg gi bëgg alal tax na munumaa sant moom duma ma sant mukk ndax danaan nag yi de su ma ko neeree rey ak giléem yi xaaral ma def ko xaalis wa ilaa cant gi naa ko def ay carte di ko joxe ay ngir bu paree ma mën a jënd defar sama kër wala ma jënd ci oto suñ seex ci am loolu dalu ko wa tuhibbuna maalan hubban jamma dalu ko kon lim ci jublu mooy sant gi mooy sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ni faskuruni azkurukum washkuru li wala takfurun sand leen ma dee ma fàttaliwu ko da di ma sant xasida googu Serigne Touba jël ko way ci ay bayit yoo xam ne danañ xam ne sand sunu borom lu dul moom amul njariñ ndax dafa wax ni raajiyan min ka an taskurani sunu borom maa ngi yaakaar Serigne Touba mooy wax de maa ngi yaakaar nga tudd ma ci fa sa yu baax ya ci lii nga wax ni ku lay fàttaliku ak ku lay sant ci aaya jooju daal ni zikran bi bihi dan la shaqaawa mooy bëgg naa nga sant ma sant goo xamante ni dootuma ci texee bi bay laa yomb di wala nga tudd ma tudd goo xam ni falaa jaare texe ba dootuma texee di Serigne Cheikh Thiam wax na ni moom li tax mu gën a mën a sant yàlla du alal ndax waa aaya ji ma wax léegi sunu borom nattu na ko ci bis bi muy cant sunu borom subhaanahu wa ñu sàcc otom ci diirum ñaari fan ñëpp naan ko demal wëri ji sa oto bi demal wëri ji sa bi mu ni dee damay sant sunu borom subhaanahu wa taala ba pare ndax moo ni la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santee rek ma dolli leen wa in kafartum ina azabi la shadid waaye su ngeen ma weddee weddi xéewal yi sama mbugal lu tar la moom looloo dem googu oto boobu dem jàppewu ko ab mbugal nattub sunu borom la ko jàppe di xool ba xam dana ko sant am du ko sant ndax yent yàlla Suleymaan dey bi mu bëggee sées ba ca Balxiis mu ñëw dafa wax ne sunu borom damay nattu bi ko ko bi ko indilee procédure bu gudd la jëru ñu koy nett la xesas dafa gudd dafa wax ni sunu borom damaa nattu ngir dama koy sant wala dama koy weddi kon sunu borom li tax mu yóbbuwoon oto bi yebal ñu ko jël mooy day essayé xool suñu Cheikh Thiam mi ba xam alal moo ko ñor wala bëgg ma moo ko ñor waaye dafa dikk fekk ak bëgg rek ñor ko. te yéen yàlla yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo waxoon ni sunu aadama day day da ngeen xam ni ak ñàkk doog moo ko indi ci àdduna mooy àjjana laa ko laa ko laa ko laa ko bàyyi woon du rafle ab jant du ko tiim te du soxla dara lu mu bëgg suñu borom fajal jox jox ko ko waaye nag ñàkk dogu ak ñàkk moo ko fii ci àdduna wala qad haydna ila adama min qablu wala nasiya walla najid wala najid lahu asma lu am solo booy dogu dogu ni fii laa bëgg a jëm ci yàlla fii laa bëgg a àgg ci yàlla Serigne Cheikh Thiam yàgg naa dogu ci yàlla yàgg naa wax ni fii laa bëgg a àgg ci yàlla ba gis na Serigne Touba ca Thiès Serigne bi wan ko Serigne Touba wan ko ab pak boo xam ne ab rëbina moo cay xellee ñuy dem lu yàgg ci at mooma la nag ba ca dellusi wala lu ko lu ko lu jógi ci la tuddee ci la xaadim ci tudd xaadim ci am mu tuddee ko suñ Touba. waaye nee na keroog biñ ko wombatalee ba andi ko fii ci Touba di ko fi daggal ab pàkk muy kër gi nee na keroog fañ ko daggal fa rëbbi la ba nekk muy rëbbi ba ko suñ Touba wanoon kon mi ngi sant. nee na Serigne Saliou Touré moo ñëw boobu sax tudd xaadim ci am mi kon. sëñ Cheikh Thiam dañuy añ daka eh, sëñ Touba boog dañuy añ daka wa inda ibadika feelu ko ca loola sëñ sa sëñ Cheikh Thiam feelu sëñ sëñ Touba ca mooy sëriñ Touba dadi yashkuruhu kulliya bil kitaabi bila muadatin wala itaabi man de suñu borom toll naa ci moom dama koy sant ba sama wey sama jotu baaraam sama karaw yi sama lépp koy sant bila muadatin wala itaabi lu xam naa li tax ma wax loolu kon ay yoon yoon sëriñ Touba it delluwaat waxaat ni ko Serigne Cheikh Thiam feeñu laa leen wax de wax naa leen ni leen li ko sëñ sëñ xaas fi mu jaar ak moom képp war naa tax mu am ciru yàlla man weddilu ma ko ndax ak njëlbeen kat daanaa test ndax man téere rek laa xam lu ma gisul téere dama yaakaar ne loolu amut waaye jaar naa man fu ne ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba ma dem ba xam ni kii ciiru suñu borom la yor mooy sëñ Tuubaa da koo liggéeyloo sëñ Tuubaa lépp ko liggéeyloo nag mooy dane ko alal jooju millions yooyu nga yor day dañ ci say loxo kon nattu ba ñëw na wala tubloon na kum wala tubloon na fii amwaalikum wa anfusikum yàlla dama leen nattu seen alal yi ak seen bakkan ah, alal bi ba mu ñëwee. aaye ngay waxaat foofu waaye nag man lu ma fekkee dinaa ko wax. ba mu demee ba million yooyu yëpp jeex saxaaba yi mi yëkkati fii jox ko defu fa dara ñu ànd ci kilifa goo xam ne ay milliards la yor ñëw def binaa bi di ko dama lay kër gi ba mu mel ni ñu toog toog moom mi waxuma ci dara mu di ko caagi woo ko di ko sama borom daal na ma ne ko defar ba mu yàgg mu soog maa woo ma ko ma ne ko moom boo ko bëggul ñun soxla nañ ko doxal lii moom it kon dégg nga loolu mooy sunu borom waat na ko ci alal ndax sëriñ Habibou Diop moom mu sëriñ Mouhamad Lamine jóob Dagana moo toog fii nii ci Thiam Baye Cheikh wax ni sëriñ seex Thiam de bi mu ñëwee tuubaa laa xam ne sëriñ Touba moo koy liggéeyal utul alal daan ne sunu bu doon alal lay ut ndakaaru lay dem baa mu des cees te gis naa ñoo xamante ne dañ koy wax ni ko na yow ñëw États-Unis mu lànk ñoo xam ne bu ñu woon piib rek mooy dagg nañ bee kon alal taxu ko jug liggéeyal sëñ Tuubaa moo ko tax a jug moo tax suñu borom di ko natt ci alal jooju ka ko doon wax ni ko kaay ma tabaxal la kër gi ba mu jekk ba mu rafet waxal ñaata la binaa bi moom mu gàntal ko xam na ni loola bu ja duggoon li mu bëgg ci suñu borom dootu ko am dootul gis sëñ Tuubaa moo doon yónni di def dégg ko moo doon yónni lu def lu bilan bi mu bàyyi ko loolu damay fàttali sama sangu baax Serigne Saliou Touré. nga xam ne ay milliards restes jeunes yi soixante-dix ko proposé soixante-dix milliards. suñu sëriñ soixante ko ñëwal boo ñëwee danaa la jox soixante-dix milliards yaay gën a gën a riche ci Sénégal mu ne ko gannaaw ba nga alal bàyyi naa ko kooku sëriñ Saliou léegi gis nga cëru yàlla dafa neex moo tax sëñ Tuubaa ci biir loolu lay wax ni tudd gi nga may tudd yow yàlla dama fàttaliku ak ma lay sant loolu dama doy sëkk mbirum adduna yi dikri wa shukri lilladi qad kaana lii bihi bi habibihi muxtaari fil kawnayni damay waxaat Serigne Saliou Touré di dox soxla wulub xaalis soxlawul lenn danoo mosaan maa jëmm jii bu ñu ñëwee ñu toog am ku ñëw di laajte Serigne bi ni ko maa ngi nii mu ne ko man day dama ndékkiwul te dama réerul ndékkiwuma ma ñëw ci yow Serigne ni ko ku la yor kon Serigne Saliou Touré ni ko ku la yor man ko xanaa yàlla man ko yaakaar yàlla dama yaakaar Saliou Touré dama toog fee daf ma soo lam ci la ko ko mu yóbbu leen maa ngi moom kon kooku soxla wul xaalis wax ko waaw tamit dëgg a ñàkk na seede kon yooyu yëpp ay seede la xëy na temps bi moo xat ba tax li ñu bëgg a wax ci ak cant ak tudd yàlla ak tu tuub nga xam yooyu yëpp dañoo lënkaloo duñ ko man waaye li ëpp solo ba ëpp solo yàlla ci bopp moo ñu ko wax te ñu gëm ko ndax boobu ba léegi gisaguñu kuy taw ku dul yàlla boobu ba léegi gisaguñu kuy rey ku dul yàlla boobu ba léegi gisuñu asamaan si wàcc te kenn ko téye muy yàlla gisuñu suuf si màbb te kenn ko téye muy yàlla moo ne maa yafalu laahu bi azabikum in shakartum wa amantum yàlla ne li fekk yéen a ngi sant duma leen mbugal mukk kon ñun mujj nañ ci mbugal ñun waa tund wi sëñ Touba nee nag moom sant gi muy sant yàlla mooy xaritu bu xarit gu mu doon xaritu yàlla ci ñaari ci monde bi àdduna ak alaxira moom nee na loolu moom lay sant yàlla nee na sunu borom loolu rek moo ko gën a lépp sëriñ Touba sëñ saa yu turé mi sëñ euh, Cheikh Thiam miit du sama man matuma ko seede ndax doom laa moo tax waaye li may woo maa ngi koy wax ci làmmañu kuy discours di wax di seede maa ngi ko wax ci làmmañu sëñ Alaaji Madiagne Niang moom nee na tur ak génn góor yàlla ci boppam moo ñëw ni ko dama dem ci pays yi te kooku du waxantu ni ko sunu borom wan ko ni jëmm ji ni ko jëmm ji la ñuy wax xalilu rahman muy Serigne Cheikh Thiam moo tax nee na tur woowu laataan ko jëmm jooju di ko wax moom xam na ni moom xaliilu rahman la jël na ko ndax tur wu muy sikar nee na sunu borom moo ko ko jox bi kenn na ko ko jox tur wi muy sikkar moom su sunu borom moo ko ko jox comme ci am ndigalal ñaanal ñaanal la sunu borom ci ndigal sunu borom lay jógee buñ ne sunu borom nag xel yi dañuy jàkka naan sunu borom kii muy waxal ak nangam déedéet affaire yi demewut noonu gis nga boo lekkee ba suur la la suurloo xamoo ko du ceeb bi de boo naanee ba màndi la la màndi loo xamoo ko du ndox mi booy nooyi nooy gi ni muy neex ngay dem ak a ñëwaat bu jàpp ne air bi la ak fii lu mu yaatu déedéet xamoo ko secret la boo xam ne suñu borom moo ko def kon ci bis bi it mooy weer wii ñu nekk mooy weer rajab di weer woo xam ni mooy juróom-ñaareelu weer ci weer yi juróom-ñaari position la taxaw juróom-ñaari position yooyu kila la yent bi ci boppam jógee fii dem juróom-ñaari asamaan suura al amini ma al amini fawqa al amini li lasfiya yi te mooy juróom-ñaari guddi kon weer wi weer wu màgg la waaye ñuy ji ñun nga xam ne sëriñ bi rek lañ ci doyloo nee na yenente bi li ngeen koy tagg tag tagg tagg tagg ak li muy baax baax baax ak li ma ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin lenn rek moo ma ci gën a neex ci jikko yi muy shabbaaran shakuran Sëñ Tuubaa wax loolu laxat kunta shabbaaran shakuran wa naasihan aleyka salaamullahi ya maahiyal jahli nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am muñkat la waaye ab cantaakoon la moom yonent bi ku mën a muñ la ku mën a sant la waaye ku mën a conseiller la te jikko jooju Serigne Cheikh Thiam mi roy na ko ci moom ndax ku mu gis digal na la lu baax ku mën a muñ la it ndax bu mënta woon a muñ du agsi fii ndax ay millions ni mu neexee ku ko yor ñun la day koo ci yow waaye lay ñëw a dàq nga di ko nangu man de bu dee man duma ko nangu ndax xamaguma lay ñëw dama naan yàlla nga bàyyi ma millions yi damay sant rek lool laa lay loolu laa koy wax waaye na nangoo bàyyi millions yooyu dem xaalis bopp dem nga ne lii ab póotit la suñu borom moo ma jëy póot mooy tax taxliya mooy rékki dindi la ngir taxliya la mooy ngir wékkalaat la yeneen garaat mooy siñ Sall Touré ko njëkk a wax ni ko bi mu ko waxee ay ay ay mbir yoo xamante ni mbirum biir la sëñ Sall Touré dañuy day yëkkati loxoom bu tedd boobu nga xam ne kum ko laalal sa dem sa yaram araamal la sa war a ni ko ko jàpp ni ko sëñ Cheikh lii kañ la sëriñ Cheikh lii kañ la fanweeri nag moo mën waaye nag. mëneer moom waaye nag coow li muy bari bari ak sant yàlla doy na képp nga mucc ci ak kéefër ak bokkaale yàlla. xam nga nit ñi danañ am dara alali adduna wala leneen leneen ngir sante ko yàlla waaye nag sëñ Touba lim ñu jàngal sant gi gën a neex mooy boo muccee ci sirk ba dootoo bokkaale yàlla waaye nag boo muccee ci tooñkat ñi ndax sëriñ bi di bi muy sant sunu borom dani maa ngi sant sunu borom ngir biñ ma yóbboo ci géej gi boole maag ngi soxor ña ak ña ma bàyyi fii ñoo xam dañ maa saxare woon rambaaj ba ñu yóbbu ma bi ma liggéey man li may sant suñu borom teqale gi ma teqale ak ñoom ba la bëggoon amuñu ko te mooy xilaahu dawil ishraaki lii xaada wa inni bu shukurin ala al farq daan ni nag li ma ci jublu mooy xashattu shukurallaahi shukran mutayyaban uqaatibu xayral xalqi bil xulq daan li ma jublu man Serigne mooy sant sunu borom subhanahu wa taala ci lu tey may wàkkanteeg moom nag ci yeneen tam bu tedd bii di soppeem di xaritam mooy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sëñ Tuubaa nee na ko la anta imam ar rusli xat jaa annahum talaa xawka fil asrayn wa kulluhum xat salla wala wal kullu xat salla daal ni sunu borom moo la convoqué yow yonente bi sallallahu alayhi ci weer wi ca péyam yu tedd ya dajale yonent yépp péy boo romb fekk fa ay yonent ak i malaayika nga jiite leen julli ba ñu xam ne yaay kii yaay gën gi mbindéef yooyu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga jiite leen julli ba ñëpp jeex ba juróom-ñaari asamaani mat nga dikk ba sunu ba ci man sunu borom subhanahu wa taala ma wàkkanteeg yow jox la sëriñ jëm muy julli sëriñ Tuubaa sunu borom jox ko ci sëriñ jëm muy sëriñ Muhammadul Fadal radiyallahu anhu moo tax suñu Tuubaa leen ni kas zu rajabin akramani man weer wi moo ma teral kon weer wi yàgg naa terale waaye nag nee na ko suñ Tuubaa xadamta bi taqdimil ali ya rasul ya rasulana wa xustal ola ya nasir al xaq bil xaq sunu borom ci boppam mi jiite sunu borom ci boppam moo la jiital mi aji jiitu ji moo fekk yonent yëpp ñi mu yónni woon nga xam ne topp nañ ci cent vingt quatre mille prophètes nga mujjee cee ñëw di doome Abdullahi mu yëkkati leen ñoom ñëpp ni leen ba ma leen di yónni yéen ñëpp kii rek a taxoon kii rek moo leen gën. moo tax Sëñ Tuubaa yëkkati waat loxoom daal ni gannaaw yonent bi moo gën man maay man gi mi def xos naa bi kaw nii xadimal mus xos naa bi kaw nii Moustapha xay rasul tariixatan naasixatan kulla subul yonent bi ni mu làqee mu doon gën gi tariixa doon ki gën ci yenent yi man noon laa doone gën gi euh, diine man noonu laa doone xaadimal Moustapha doon gën gi. yor gën gi tarixa doon asna xadim mulkul alil baaxil xadim jaalani asnal xadim liman lahu fadlul yadum wasaadani fii xidami loolu kenn ku ci man dara sunu borom ci boobu moo ma def man ahmadou bamba may asnal xadim yenente bu ñu ibbee kàccet bunt bi mu dugg aljana man suñ tubaa maa ciy topp ana sahaaba waaye li ko ko may mooy ñaq sëñ bii lii mu am dañ koo yërëm de ñun ñii laaj la ñu dëkkoon ak moom juróom ñaari at yoo xam da ngaa wàcc sax njaboot di fanaan ci der di fanaan day wérd loolu yombul. boobee yaayam ko bëggoon a gis lay ñëw. kon seede yaa ngi ne le. àll bi rek lay nekk ko waxee la. li ko ko may nag mooy mooy jaamu yàlla rek xalwatu moo ci mujj fan yi rek a ci mujj. waaye kenn rek la koy defar muy sëñ Touba. man ngi de lu may tuuti tuuti may taw Baye mat naa ci seede Baye Cheikh sunu borom daf ko nattu ci alal mu réussir mu doog a ñëw ci xam-xam nit daan na jóge këram xëy fajar jàq lool xamul fu mu jëm ñëw toog ci palaasam boobu commerce def bala mu foo jigee du wax soxlaam de bàyyi seex day xam soxla bala mu faa jógee dana loxoom moom ci pet yëkkati loxoom amagum dugal ci loxoom mu dem dundal njabootam te kenn du yëg loolu maa ko fekke ba tàyyi daraan xañ njabootam di jox njabootu jàmmu lu ma fekke man nattu yi bi mu ñëwee dem nañu ba ñun billaahi wallaahi sumbi la reere billaahi wallaahi taala suum bi bu ñu xëyee moom la ñuy reere mu metti lool ñi muñ ko boobu suñu boroom lii la doon waaj ci moom suñu borom ku mu doon natt ci natt yooyu te waxuloon lii laa lay jox da bañ doo nangu waaye moom dafa muñ ànd ak borom bi gàddaay dem ba njabootam ngir liggéeyal boromam ñun daawuñu ko gis toog nañ ay weer gisuñu sunu baay bu ñu xëyee sunu yaay def la mu mën nëpp dëppal ñu dund kon kii sunu borom daf ko yàgg a dama daan dem ci àll bi boobu tout tànk laa ci kaw gi fu ma muusaan ni Cheikh Thiam mooy sama baay fonk gin may fonk ndax la lan teraanga gim leen daan defal ku ne xam na ni ay jamono kaw ga dafa metti woon danga daan ñëw marché doo am loo yóbbu sa kër dana yëkkati jox la nga dem yóbbu sa kër saa yoo amee ñëw fay ko loolu man xam naa ci dara kon kii yàlla sunu borom daf ko yàgg a préparé bu bëggoon njabootam am ay milliards danañ ko am waaye dafa bëgg ñi am ko ci anam ba nga xamante ni mooy jàppandal bëgg ñoo taxañ man xam naa loolu yàkkamtiwu ma sama dara moo tax ma koy wax saa su ne dama koy wax ma ne ko man yàkkamtiwu ma sama dara ndax xam naa su bëggoon ay milliards dëgg la su bëggoon am na ko bu yàgg ndax ku ne bëgg naa jëflanteeg moom ndax moom suñu borom ndigalam ndigalu suñu borom lay wéyee bu ko sunu bu ko sunu borom nee bàyyil mu bàyyi ko nee jëfal mu jëf da gis nit ku ñëw bëgg a jëf jëflanteeg moom mu ne ko baax na waaye as tu diir lay toog ni ko ah moom ci som ndigalu suñu borom te biir na ma ni am na ñoo xamante ne loolu moom bu doon ñoom ñoom moom taxañ nañ ko moom jeexam kon dama bëgg sama baay bii waxul ma en tant que doom damay wax en tant que taalibe en seede laay wax seede yàlla képp ku nekk ci mbooloo mii nga ñaanalal ma ko yàlla sunu borom yàggal ko fi wéral ko ndax ak dundam njariñ la du ci sunu njariñ ñun ñii njabootam de njariñ la ci jaamu yàlla yi ku ñëw fii xam nga ci dara alal nag lay waxee dafa mosul woon a ñàkk rek masana ci ay kàddu. da ngaa da ngaa def ju koy taaw. dana yóbbu ko doon mun a man may taaw. nga taxaw di wax xol bee fees di nga wax tëyatoo ko li nga ko. ñu dee da waxtu wi rek mënu ko mënut man wax ci seex man wax ci seex te yàlla rek tax. man mii jël micro bi di wax moom de dañ ne moom de Cheikh Thiam rek la bëgg saa mag mii di sama xalifa ñoo taxawal léegi ci oto bi moom te maam jaga male mu ah yow de ñun de moom Omar day daa bëgg Cheikh rek ba njaga tontu ko ci wax boobu man Omar Niass laa tudd doom yi Modou Niass di di sitab Cheikh Niass Cheikh Niass sëñ te duma gone juróom benn fukki at nangam dàq naa ko te maa ngi sant suñu borom bu baax bu ma gisee nit kon daan nag moom am na lu fi jógee mooy suñu xalifa ñu toogoon fee léegi mooy sama xalifa maam Cheikh Niass sëñ Touba ko seex njagade ak wéradi ci këram la jóge ci lal ñëw na mënut ñàkk teewa bi lii mooy li ko indi kon sëñ Cheikh mi koy wax waxtu yu mayewu ndax timis gi soññ na ba noppi kon nag yàlla nañ ko suñu borom téyel ci suñu kanam ban yàgg fi lool danañ xam ne lii dafa yombut ku nekk ko neexoon ñoo am na ñu war a sant waa ka seen xaas ñoo di wasalem mënoon na leen a sant waana di leen a sant sant biir ndax ñetti fañ rajab ya ba mu jotee wàccal nu lay kaamil ngir seen jëm seen xaas kon xam nga ne kooku kon mbay na seen xaas xel wala lii suñ borom da koo sant mu koy jëfe mbiri suñ borom la suñ borom nag lu mu la sant nga di ko jëfee jaam bi lot na ci nit ki nag wax mbaaxam du wàññi sëg mbaax dara waxu mbaax ak nit ki du wàññi sëg mbaax dara kon nañ ko ñaanal suñu borom bàyyi ko suñu kanam ci doole mbaam Bamba bil